tête de liste rek la ñu mujj fal au plus fort reste te sànq Moussa Waye mi ngi fàttali le cas à Arsenal boo jëlee Bougane ak gëm sa bopp man dama jàppoon ni moom dina taxawal coalition boo xam ne mooy nekk njiit gi tête de bi ba pare dem bay waaram ñu xool la lay peese waaye tey dafa ñëw langaamu si coalition si coalition boo xam ne démb ñu nga doon tam c'est couleur c'est couleur c'est magenta waaw waaw ak noonu yàlla doon tam ay nuuxu mhm. yow yaa wëlbati koon jàkkaarloo Khalifa ne il a trahi toute une génération mhm. te yow da ne sa wax sàmm sa kàddu la donc sàmm sa jëfin sàmm sa doxalin mieux encore mhm. Khalifa boobu yaa waxoon ne c'était l'incarnation l'incarnation du système te yow anti système nga dara du tax yow nga mën a dugg si li nga xam moo di ñuy système léegi ànd nga ak waa système bi tamit te encore que yow fu mu toll nii dañ la seet si bootu parce que coalition boobu moom mu nekk si tête de liste man donc foofu aussi se pose le problème réel de l'éthique et de la déontologie politique si loo xam ne fait pour fait man je ne je ne parle pas de la personne nga xam mais les faits posés mhm. les actes posés mhm. par rapport au discours donc tu as vu léegi nag appartiendra aux Sénégalais d'analyser et véritablement xool la la composition de cette coalition la pour xool na leen war a mën jox si baat ak si nombre de si si wàllu représentativité au au niveau de la prochaine législature mm-hmm. mais je dis encore une fois boo ne sàmm sa kàddu moom. Mm-hmm. dina am loo xam ne faussé na ko ba pare. boo jëlee pur sëñ Moustapha Sy. Mm-hmm. ba si wàllu gàmmu bi rek tey boo ko gisee mën a Khalifa Sall la bett parce que ñoom itam yàgg nañu cheminer doo ensemble. quoi qu'on puisse dire depuis longtemps. Euh, sëñ Moustapha s'est ah, montré benn allié de Khalifa Ababacar Sall donc Déthié Fall moo noppi woon xamu yoon fu mu jëm. Ah. waaye tey firndeel na ni moom fii la ànd àndutul ak ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon au sein de la de la coalition Yewwi te ka ca jiitu mu di mu di mu di wàllu Pastef hmm. donc euh, loolu nag mooy mooy sàmm Sénégal léegi nag booleel voix wu quatre parce que pur la. ah Khalifa la Déthié la Pape Djibril la ak Anta ah, Babacar juróomi candidat mhm. nekkoon si présidentielle bi booleel seen mhm. ñaata lay joxe. yaa ngi wax 500000 mais est waaw waaw parce que pur. Papa Amadou waaw 175000. Mhm. à peu près 175000 à peu près. léegi nag euh, la ci des boole ko. Khalifa Sall 69000. waaw dama majoré sax su ma nee 500000 <laughs> dama majoré. 40 000 voilà waaw ah, euh, waaw dama majoré moo tax ma ne seen genre sax dama dama waaw dama majoré rek pour daal xam ne maa ngi si si maa ngi si sorewuma sorewuma lim <laughs> donc yooyu yëpp mi ngi si daal. mais man dëggantaan j'aurais bien aimé que gëm sa bopp def challenge. ak lii boobu léegi ni muy taxawee ni muy waxee ni muy doxalee. Mhm. man bëggoon naa élection yi nekk un challenge mhm. moom. mu nekk vraiment un véritable challenge pour Bougane Gëm sa bopp. pour que ñoom ñu ber tabax seen coalition ak d'autres partis d'autres mouvements ah n'est-ce pas Moussa mm-hmm. pare moom mu jiite nekk tête de ñu investir seen góor ak seen jigéen mu mm-hmm. dem si élection bi ba campagne en tant que tête de avec un discours boo xam ne moom moo koy porté def une campagne à l'échelle nationale boo xam ne moom moo koy porté mm-hmm. au bout compte seen ñu xool moom lan lay peser ci échiquier politique Sénégal bi ce serait à mon avis déterminant pour l'histoire politique du Sénégal et ça serait aussi peut-être une occasion pour moom mu mesurer a la loolu peese. Mm-hmm. Mm-hmm. peese sa bopp euh, euh, euh, boo xoolee configuration bi d'abord mooy la question de représentativité ci leader yi nga xam ne ñoo ko tënk mais une autre question qui va diriger coalition. waaw mais moo tax ma ne coalition bi dañ koo teg rek waaye toogagul de. Hmm. parce que man gëm naa ne tant que demuñu ba am liste du ma gëm ne coalition bi toog na. kaay ma wax la benn affaire gars yi ñi ngi dem ci coalition bi. Hmm. di waxtaan ñi ñuy defar liste mais ku nekk yaa ngi defar liste bi defal ko sa poste toog. Ah waaw parce que da dem de waxtaan ji ma ñëw nga bëgg ma yóbbu position boo xam ne xa ñoom dofuñu quoi ñoom ay ay politique lañu. Hmm. nga ñëw ñu bëgg di dugal ci benn position leer na ne doo jàll. mais damay préférer ma dem ak sama liste bopp au moins ma ma ñàkkante ko am fa dara su ma ñëwee ngeen rangale benn man benn yow parti nga kan moo ëpp chance ci seen bi Anta Babacar moo a ëpp chance seen coalition bii nekk nii. xaw ma ndax ñu ngi koy sóor parité que femme mooy jigéen. te la tamit. Ah pour pour nekk député. mën nekk pour nekk deuxième. anta am na chance yëpp parce que fi ñu toon su fekkee ne par exemple dañoo dañoo dañoo jàpp ci chiffre yi. Mhm. ñu ne pur yéenay jiitu yéenay am tête de liste bi. après ñu ne xalifa yaa war a ñëw xalifa bu bëggee indi benn benn benn benn militant am mais anta mën na ko ne man man leader la mhm. parce que conférence des leaders leader mooy jiitu après militant bi doo ko ñëw ah loolu moo waroon ci liste Yewwi Askan Wi Sonko bi mu nekkee tëdd si Diomaye ñëw onzième position parce que leader la ñu enchaîné leader la ñu enchaîné leader mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ma ne Anta moo ci ëpp chance ñeneen yeneen leader yi nekk léegi bu dee noonu ñuy noonu lañ koy nattee buggaan ñaata position la nar a doon faut kon premier bi pur ñëw jàll jigéen ñëw deux trois après euh, taxawu ñëw mm-hmm. quatre keneen ñëw cinq décce ñëw six sept onzième quatorzième quinzième position nga kooku dina doon député moo tax ma ne boo xoolee jël benn coalition ubbi ko yaatu ko ñëpp dugg ci législative nii li la koy may mooy coalition bi day am ay poids lourd comme yeewi askan bi yeewi bi ñu ko doon def euh, jamono élection yi ñu génn mhm. da ngay toog kii ne ah Ziguinchor da am nañ ko suñu poche ñu ne waaw ñu ne Dakar ñu ne am nañ ko suñu poche ñu ne waaw ñu ne boo demee Mbàkke Boroy am nañ ko suñu poche ñu ne waaw mais ñi fan nañ mën a taxaw ne fii am nañ ko suñu poche wax ma rek benn benn waxuma la département sax mais commune rek boo ne da nga naan waa waa waa waa askan wale nee nañ bu ñu demee dañuy gañe commune bi ma benn rek Dakar dañ koy lijjanti gis na leen fi dal ci présidentielle yi Ziguinchor. est-ce que Dakar dañ koy ñàkkante gis nga boo dem amul fenn fooy dem foo xamante da nga ne ñii kat buñ dajaloo mën nañ am dara. loolu moo tax ma ne la que leader ñi fa bokk ñi kenn koo xam ne sa bureau de vote ko. kenn ñëpp naa gañe seen bureau de vote waaye léegi ñooñu nag tey ji buñ defee mbooloo ñëw mu ne buñ moytuwul bukki aar bi moo leen di màttaat te loolu nag man su ma doon ñoom dama ne ku ma si mëntul su ma doon bugaan Abdoulaye wax na ko léegi mais dama defa sama liste bopp loolu amul lu ko amul lu ko gën a amul lu ko ëpp garanti xanaa xamul liste bopp tey jii li nga am di nga xam ne yow la mais liste mbooloo yi nii non seulement euh, yow kese doo ci génn mais da nga dañ la dul teg place bu la neex yenn saa boo amee place bu la neex risque la parce que nit dina la bëgg votel am kenn ku nekk ci mu tax mu ne la votel parce que ñi ñi bon ñi de moom surtout aar ni mu dundee xanaa xamoo aar dafa dafa dafa am lu mu def ci langue politique bi loo xamante ne tey ñu bëri fi ñu doon teg aar seenuñu fa aar gisuñu fa aar tey jii day tax tey jii ñii bu ñu demee dafay dafay xaw a négatif si ñoom parce que gis nga ñu bëri bu doon aar amu fi woon ñii bu ñu tegoo gars yi dañ leen di commencé natt naa ñi est ce que mënuñoo am waa est ce que gars yi duñu yóbbu cohabitation est dégg ko ci wax affaire cohabitation si ñi mais lu ñuy wax est nañ am benn député bu mat ne ay du ay kese rek ñoom ñoo yoru poids poids politique bi surtout diggante février bi ak euh, novembre bi nii li fi li fi li fi xaj bëriwul li fi xew bëriwul te ñoom ñu bëri dañoo nekkoon ci dañoo dañoo demoon dañoo demoon nuñ nu ma koy waxeete dañoo dañoo tëju woon kenn génnu si woon hmm. Déthié Fall fan yi lañ ko gisaat Khalifa Sall ñu ko gisaatee yàggul Anta Babacar buñ ko gisaatee yàggul donc remobilisation bi waroon a am kenn gisu ko présence bi waroon am ci terrain bi amul donc yooyu yëpp ngeen dajale ko ngeen bëgg rek du tic au tac bëgg tëbaat taxaw lay cëpp non je pense que du du du yomb si ñoom kenn du ne nag du ñu am dara non non kenn du wax loolu mais yaakaar naa ne du yomb si ñoom étant donné que sax dañu jàkkaarloo ak benn euh, parti au pouvoir boo xam ne dafa ne bloc lay def moom kese mooy dem day gën a compliqué si ñoom. d'accord alors euh, Abdoulaye Mboye rapidement tant que communicant tekk ne bëri bokk ci coalition comme ni ko Moustapha di signalé amoon nañ ko gannaaw bu ñu génnee ci présidentielle yi ba tey jii législative yi ne këtt ne jonn ñu jóg taxaw ndax dina nekk loo xam ne dina non mënut a jouer parce que tamit sénégalais yi ku muy dégg di ko gis day gën a bàyyi xel. donte mhm. ne leader yooyu xamee nañ leen bu baax ici Sénégal mais cependant am nga ils ont en face d'eux les oppositions ont ont ont en face d'une nette politique qui a une légitimité débordante et qui a un parti très bien structuré et boo xam ne c'est un parti adopté par la majorité des jeunes au Sénégal. mu ñëw renforcer wu ak ay alliés yoo xam ne ñenn si ñoom itam c'est des leaders qu'on connaît ñenn si ñoom c'est des leaders qui ont au moins une bañ am nañu foo xam ne fa ñu sokkee am nañ fa base tey jii nii euh, boo bëggee jàkkaarloo ñu mel noonu il eh, il faut se sax bien avant heure le matin donc dina defe naa ni si wàllu communication nga war a tenir discours boo xam ne en réalité di ko convaincre parce que dafa am taar yoo xam ne dafa dafay xaw a collège si ñenn ñi mooy euh, l'insolence politique. Mhm. Euh, boo xam ne dafa ñenn ñi dañ ko firndeel foofu. ak ñi nga xam ne en dañ leen jàppee comme ceux-là qui ont posé un acte de trahison envers une coalition boo xam ne sénégalais ñoo ko falan muy yeewi askan bi donc yooyu yëpp daf see nekk donte man toujours dit que Khalifa Sall il avait le droit d'être candidat. et de tout faire pour être loolu mënoo ko bañal nit ki euh, Barthélemy booy xool euh, nu mu taxawee woon si langue politique gis nga wàññeeku noonu lu bari. si ah wàllu prise de position si wàllu si wàllu bi am na lu bari daal lu wàññeeku. lu sax voilà. Mhm. donc ñeneen ñi dañ naan maturité politique ma ne non mhm. la parce que tam politique moom. choc choc présidentiel. waaw waaw présidentiel nga foog nga foog ngay mhm. wax moom lay dégg. mais xam nga tamit ku jógee si cour yëpp. génn prison battre campagne dix jours. Mhm. dix jours nga battre campagne. donc ñu fal la à cinquante quatre pour cent et ça tout dire par rapport légitimité boo xam ne dafa dafa ëpp doole. beneen forme de légitimité boo xam ne keneen am na ko si langue politique bi te ñaar ñoo ko incarné ñoo ko fi am. dañoo ko fi ëppale muy muy Diomaye président ak premier ministre du Ousmane Sonko. léegi nag ñeneen nag il faut il faudra travailler travailler dur. Mhm. communiquer de manière agressive. être présent de manière permanente sur le terrain. d' accord ça kon pour opposition bi ñu jàkkaarloo ñu ni mel.